waaw épreuve ren wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla bu baax waaw xaw na tey daal en tout cas waaw li ci des tamit yàlla na ci yàlla def tawfeex comme ni mu débuté mu mu terminé ci. taux bi moom c'était abordable moom wax dëgg yàlla lu ñu jàngi rek la ñuy jox moom c'était abordable bu yëpp mel ni dina baax incha allah c'était abordable moom def nañ ko ci salaam xaw naa abordable tuuti waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di xaar yéen a des tamit yàlla defal ñu ci xéwal. pièce pièce moom du si ñàkk moom privé bi moom pièce moom du si ñàkk mais sant yàlla rek yàlla baax na non non feeñu ci moom wax dëgg yàlla ndax pare woon nañ ci côté yëpp waaw. waaw moom wax dëgg yàlla xa abordable na daal wax dëgg yàlla parce que leçon yi nga xam ne moo génn yëpp ci kii bi bokk moo tax rek leçon yi nga xam ne moom lañ defoon en classe defoon nañ leçon yëpp daal wax dëgg yàlla ku def. effort war nga ci mën a génn ak ak moyen daal wax dëgg yàlla. ah waaw ñoo ngi euh, jàpp confiance te yàlla xam nga examen moom da ngay def rek waaw ah, on ne sait jamais daal en tout cas def nañ daal li nga xam ne moom moom la ñu waroon def li jës mi ngi si loxo yàlla. non non wax dëgg yàlla li ñu jox yëpp jàng nañ ko waaw on a terminé le programme moom wax dëgg yàlla. épreuve c'était pas trop difficile c'était à notre portée bon def nañ li ñu mën yàlla baax na ñu ngi yaakaar

Euh, bu fekkoon bu bu Covid bi nekku fi won ba léegi ñun pare nañ suñu programme te du ñu am ay jafé jafé affaire yoon noonu. xaw saf dal instant bi xawna saf parce que leçon yi dernière leçon yi lañu génnee té xaruñu won fofu xaruñu won dernière leçon parce que ya a y a des leçons sax amna na classe yoo xam ne defaguñu ko am na ñoo xamante ni ba léegi defaguñu leçon yooyu ne binduñ sax déjà instant bii ni dernière leçon yi déjà ñu bëri binduñ parce que defuñu leçon yooyu non déjà voilà

c'est ah, défaisable quoi mais ah, comme puisque année bi maximum d'exercice pour entraîner aussi hein, ah, avons handicap lay doon quoi temps pour exercer parce que terminons le programme 4 jours après examen Pourquoi ñëw. avons exercice Nous avons fait exercice de mais euh, quand même professeur yi jàpp nañ ci quoi parce que jox nañu ex d'application yo xamanteni xamante ni compenser série waaw mais li ci dess mom dañuy dañ koy bàyyi ci loxo yalla rek peut-être inshallah, dina bax bu soobee voilà donc épreuve bu ma épreuve bon tane na ah, tane na parce que bo xolé daw, dawat géeg épreuve daw ak yu dawat géeg épreuve passé nii parfois des goudou quoi des goudou, mais rendi jii vraiment lu len jox yemna té te na ak sen vraiment sen jang bi. parce que dafa yem quoi épreuve yi c'est compréhensible te encore texte bi lu muy seen dund bi la lu ñuy dund mooy problème yi ñuy jànkonte ci kër yi ñi côté góor yi wala ci côté jigéen yi mooy violence domestique quoi waaw maanaam ñàkk déggoo ci kër yi ça ça peut être si côté ki wala ku góor ki donc vraiment li ma xool ni abordable na parce que dama ko comparé par rapport lu passé comparé ma sama bopp ak élèves yi mais dama ko comparé par rapport lu ñu daan joxe donc ren naa ne macha allah quoi élèves yi ku mun nga am note bu baax

muy distanciation sociale muy masque yi muy gel tout est là il y a aussi aussi dama ko fàtte aussi euh, service euh, Croix-Rouge aussi ñong fi di japp ci liggéey bi donc tout va bien lépp dal jaar na yoon. Euh, la police aussi est là voilà on a am fi 351 candidats la ñu fi am ñu tas leen ci ñetti série série L prime 1 ak série L2 ak série S2. ñam ñoo fi nekk léegi ci 351 candidats yooyu noonu am nañ ci 15 yoo xam ne ne absent lañu ñu ñëwul quoi. non non taw bi wax dëgg amul benn gàllankoor parce que tey ñun démarré nañu à l'heure normale 8 heures pile démarré nañu candidats yi aussi 8 heures ñëpp ñëw nañu am gisuñu benn retard constaté wuñu benn retard surveillant yi aussi macha allah ñëw nañu à l'heure voilà au démarré ñëw nañu aussi en masse quoi voilà.